doon jigéen teewute a jàmbaare ci jaamu yàlla loolu nag jigéen ñu bari saxal nañu ko ci histoire ku mel ne na Aïcha ak Sumayya ak Rabiatul Adawiya soxna jaariyatullahi Mariama bu Sayid fexe na ba bokk ca ñooña soxna jaare nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ku bari ay julli wax nañu ne daawut noppalu ci julli guddi ba bis am ku ko laaj ne ko lu tax doo noppalu mu ne ko ñaari aaya ci alxuraan ñoo tax duma noppalu guddi aaya bi suñu borom di wax ci suuratul israa naan bu guddi jotee na ngay julli ndax lee yàlla dekkal la ak maqaama mu ñu gërëm ak aaya bi suñu boroom di wax ci suuratu zaariyaati naan góor yàlla ya dëgg lu néew lañuy nelaw ci guddi yi bu fajar jotee it yaa ngi leen gis ñuy jéggalu seen borom Cheikh Mouhamadul Bachir wax na ci minanul baaxil xadim wax ne soxna jaariyatullaahi daal soxna la su baaxoon su fegu su amon diine bari lum juli julli bari lum da wor bari lum da saraxé jébbal lepp bopam ko boromam di def liko ko diine tek li war digam ak borom kërëm di Mamour Anta Sali dara manki wu ci won dan yar ay domam ci mbañum rus ak diine ak lab bari lum daan lum len daan netali nettali gañu bax ni sëriñ bi it nee na daana jàpp loola ba sëriñ bi ko teel a ñeme julli guddi la te loolu moo ngi ko déggee woon soxna jaara di wax ak ñoom daa leen wax naan leen bokk na ci aaday gaañu baax ñi day bu guddi jotee dañuy jóg di julli ba fajar sëriñ bi sax ca jamono yooyee daana taxaw ba fajar te nee na booba xamul woon sax ndekete taxaw ba fajar ñoo ngi ci jubli julli guddi moo tax Cheikh Massamba Mariamu mi nga xamee ne soxna jaara moo doonoon ndeyi daaraam mu saytu ko seetlu ay jikkoom ba tagg ko wax ne min al amaarati kawnul ummi aabidatan rabbaha fawqa al mutiaati rabbaha wal laha li kawniha fawqa jaaratin qad ahsanat ma asaat kulla jaaratiha fi ardani fi min sayiaati kanat muqaffafata kanat muqaffafatal xamlal maishati an waxya taxmilu sabran kula daraati kaanat muqaffafatan xamlal maishati anhu waxya taxmilu sabra kula daraati daal wax ne soxna jaarakat bokk na ci ay màndargaam jaamukatub yàlla la woon ku daa topp borom këram la ku daa topp boromam la ku toppoon ñaari waajuram la it nit la koo xam ne mësee fa koo xamal ñaawteef lu baax rek lañ ko daan xamal ku woyofoon ak dund la ñi ko daa gàddu daawuñu yëg diisaayoog dund du ci waari waajuram du ci sëñ Anta Salim yi nga xam ne moo doonoon borom këram waxaatit ne mutiata rabbaha wa cheyqu sayidoha ardathu afaaluha lillahi idmaana walam tuhin ahadan walam tushin abadan walam tubin amadan man aabaha maana man xaawalu xaajatan fi mulkiha wajadu nujxal xawaaiji laa yalqawna xirmaana man ayyabuha bila qawlin wala amalin yajri alayha fa kaana allahu dayyaana daal di wax ne soxna si ku toppoon boroom këram la ku toppoon boroomam la it ba boroom këram jëfi soxna jaara neexoon na ko ba mu gërëm soxna jaara nee na soxna jaara mësta doyadal kenn mësta jëf lu ñaaw kon képp koo xam ne danga ayibal soxna jaara wax nga lu amut képp koo xam ne mas nga am soxla ba jàmbat ko soxna jaara soxna soxla soo sa dana fajo képp koo xam ne ayibal nga soxna jaara ci wax wala ci jëf moom soxna jaara xeeb na ayib yooyee ba da koy jéggi jàll waaye doo ko ca seen mukk